ku dégg li nga xamante ni wax na ko fi. Mhm. ci xar baax yi nga xamante ni daanaka euh, daan na ko faral la jëfandikoo tamit yu bëri lool. Euh, ñu ngi ci sant bu baax a baax moom sëñ Gana Messere waaye di ñëwaat rek ba léegi ci laaj yi nga xamante ni euh, noté woon nañ ko. Mhm. fas yéene seq ko moom. Mhm. muy relation bi nga xamante ni bu ràññeeku la digg ak Cheikh Amadou Fadal. waaye ak njaboot gi nga xamante ni ñoo doon Cheikh Cheikhul Khadim yi. waaye itam ak digganteeg Cheikh Amadou Fadal ak ñi wali yi nga xamee jamononteeg ñoom ndax gis nañu ñu bëri ci ak njabootam ñu mel na leen tuddee loolu bëggoon nañoo xam ban relation moo doxoon diggante Serigne Touba Cheikh Amadou Fadal ak wali yooyu nga xam ne ñoom la jamononteeg ba ci sax këri diine yi gis nañ ko mel ni Cheikh Ibrahima Niass gis nañ mu ànd ak moom ab nataal gis nañ ko mel ni Cheikh Abdoul Aziz Sy Dabakh moom itam waa Tiwaawoon amoon nañu relation ak Cheikh Amadou Fadal loolu euh, sëñ gànn boo ñu doon euh, xaymaal wàll googu. Mm-hmm. relation bi nga xamante ni amoon na ko ak ñii ñi euh, ñi ci diine yi. Mm-hmm. lan nga ñu tegal foofu ci relation boobu noonu diggante Cheikh Ahmadou Fadal ak ñooñu ma tudd. xamaloo Cheikh Abdoulaye di tax bu doy waar. Mm. xam nga dafa am yéen jàngkat yi lu ñuy tuddee nazariya ak tatbiq ya lu ñuy tuddee pratique ak. ak théorie. Mm-hmm. defe naa télé boo jàpp innamal mu'minuuna ixwa faslihu bayna axawaykum mais buñ duggee ci saali yàq la. <laughs> bari na ko toog ci jataay yor micro. kenn mënta tàggale Touba ak béréb sangam sëñ diw diw seen ñaari maama bokkul nangam buy dugg di fatu na ah. gaa yi. gaa yi li tax sëñ Fallu nag mënoon a tax ñëpp nangu ko mooy sëñ Fallu mi bi. la menn sëñ Fallu am. sëñ nga fekk ci gis gi lim la wax duggee ci baraag bi sëñ Fallu nga ci fekk moom Fallu dafa donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko donn ci. mboolem makaarimul axlaaq li tax mu mën a woon ak ñëpp ñeenti jikko yi imaamu Junayd di waxoon ne comme daje fi yow faw yàlla yëkkati la seetal jikko yooyu sëñ Fallu alxelmu wa saxaa wa tawaadu wa xusnul ñëpp lewet toroxlu tabe rafet jikko te deful yàq jël gan sëñ Fallu li tax ma ne ci fi mu bokk tey xoola biir yoonu murit bu dee ñi jéem a jege xoola ñi bokkal Serigne Touba tàmbale ko Cheikh Mamadou Moustapha doy na nga ne Cheikh Mamadou Moustapha Fadilu def taawam bi ko joko wuutu muy sëñ Modou Moussa Dieng kun ko duppee Cheikh Moustapha Cheikh Mamadou Bachir dama Cheikh Mamadou Lamine ba ci Cheikh Mamadou Mourtala ku mu bokkal Serigne ku nekk jox na la la nga moom ci boppam loolu doon na doy mu wëlbatikuwaat ñi bokkal Serigne Touba ñëpp ñun bindul jëme ci ñoom tagg leen baa mu martial leen néew na tàmbalee ko ci Maam Mor Jaara borom saam tabaxal na ko jàkka ne mooy àllarbaam kon fay naar bi xoromam jikko ju rafet ko waral boo demee ci maam Cerno bi atatu ilal maxtaay fi daaril maxti te ba muy wax borom saam mais di ko tagg doy na ci egg na ci di wax ne barabu borom saam bii ñu ko denc mi ngi puugare woo barab yëpp ci ëmb gi mu ëmb borom saam li xam ne xatawadaaw fa fa xaar loolu doon na doy mag ñooñu ni meloon boo demoo tey xoolal Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina xoolal sëñ Fallu ni mu ni mu ni mu ni mu modeste lu mu ñaar lay roy mu ñu suuf ak taalibi Baay Cheikh Ibrahima loolu reconnaissance la defe naa euh, benn sëriñ bu naan damay roy sama taalibi bari ku koy wax koo xam ne bu la séenee raam boo leen bokkee ndab du nu ngoo xéewlu boo raxasoo du ko nu ngoo raxasoo ne na léegi ak taalibeem lay roy loolu lu ko waral mu ngir bëgg kële nga dégg ko ci biir kër Cheikh Ibrahima bu kër kër bi ci kër euh, sëñ Fallou fekk fa Cheikh Ibrahima Fall mu jël jumaa ji tuddee sorol bi Cheikh Ibrahima Fall loolu am jàngale la xam nga mën a julli mu mën a julli mooy sëñ Tuubaa waaye ku bëgg a jëriñ ci mën a julli da def yi dawut julli loolu mooy problème mooy jëfe ci jëriñ nit noonu mu mel tey boo relation yi tey boo demee si kër Cheikh Awa Balla da nga fekk Cheikh Awa Balla ci këram kër sëñ Massamba Diop Samb boo demee fekk sëñ Modou Samb Modou Massamba Diop Samb ci biir boo demee kër sëñ Xabbaan nga xam ne tey ëtt bu dugg ci biir ëtt yi wër kër sëñ Touba yëpp biir doomi sëñ yi bi ñu jeexee ci ku ne mu jox la la nga moom da ngay tabbiwaat ci ëtt biir kër ñu wër kër sëñ yi muy ñu bokk sëñ maam maam Maaram man nga rek sëñ bak sëñ Mor Seen ñoom ñëpp mu joxaat leen cër yi génn naan nag ñi bokkal l'islam bi kenn ku nekk am ab cër ci moom boo demee Tiwaawoon cër boobu lañ ko joxoon ngir jikko ju mat jim doonoon xam ne moom mooy njiitul jullit mu mat amir mat xalifa taxawe ko fil ard loolu xam nga da ko da ko da ko incarné ko xajoo nit ñi rek mooy li ma wax nungoo supporter seen i seen i seen i jafe-jafe boo demee tey El Hadj Ibrahima Niass gis nga photo yi ubbitel jumaa yi Tuubaa gi bi mu ubbi jumaa ji noonu la meloon ak relation mbooleem kilifa yi ne ci réew mi yépp kenn ku ne ëmbaloon na cofeel Cheikh Abdoul Fadal lu waral mooy lu l'islam di ñëw tey demal grande mosquée bu Dakar taxawaayam jëfam ba léegi bu ñuy génne ci archive kenn ku ci ëpp jëf amul amul te loola day lu fës ñu di ko génne waaye kook l'islam ku ne noon la sëñ Fallu doon doon doon doon taxaw ñii ma la wax ne yóbbu na leen Makka ñu toll ci juróom maanaam ay huit cent quelques personnes boo ko seetee da nga ci fekk ñoo xam du ko ñoroon ñaar sama alaaxa yoo xamante ni demoon na bay xaw ñaaw waaye moo intervenir. mooy mooy mooy xam nga Sëñ Fallu dafa mën a defar li ma sëñ Ahmadou Badawi di nett li bis daa am ko ñëw ne ko diw de buy julli da koy yeexal loolu mooy da ko fonk bañ cee yàq dara da koy fonk rek diw de buy julli da koy gaawto mu ne day bañ dara rëcc ko ci rek maanaam sëñ diw de nee dugg saxaar moom day day yanuy bagage mooy day bëgg mu ne na mott rek xoolal nunguwul ku yàq kenn fenn ah xam nga mu duggee saxaar dama yenu samay sëñ Fallu nee na bu ne cëpp na mott rek xam nga dafa nekk di xaari bagage kenn du yàq nit fi moom waaye am na ñoo xam ne boo newul diw leen dañuy mën a daa dof rek dugg ci xaar débat juddoo ca jeneen wax judd sëñ Fallu moom saa yoo ñëwee ngir nangam moo tax mu rafetoo woon ak ñëpp moom sëñ Fadilu xajoo woon ak ñëpp relation boobu moo dem tey ba ba jàll tey defe naa ci biir njabootam da nga ci fekk Ahmadul Badawi kan mooy Cheikh Ahmadul Badawi da nga ci fekk Ahmadou Rafaay kan mooy Cheikh Ahmadou Rahma Rafaay ah boo Chérif Fanta Madi tey xoolal Guinée li ngay xool mooy jotu te nag li ci gën a doy waar mooy cofeel gu sëñ fallu amee loon nit ñi cofeel gu ko ëpp la nit ñi amoon ci moom yóotu yóotu ko nga xam ne dafa nekkoon bàyyi ñëpp xoolal sëñ fallu mushkil li shaakin bashirul li baakin kenn mës ta takke ñëw yenn ko kër sañ fallu ngooraat problème bi foofa lay fecc ko kenn mës ta yor rongoñ dugg kër sëñ fallu te booy génn réew ñaata engagement la daan jël léegi-léegi nit def dara bu jaaxle daan sëñ falloo ko moom xam nga sëñ Fallu daawul wax def leen ci li ci yoon wax daawul nu ngoo wax loolu lu ci yoon wax def def leen ko loolu loolu am na ñu arrangé wu sama classe gi yëpp na yoon def liggéey moom arrangé leen intervenir rek a leen arrangé bu jeex ñu jàpp ma nga ne na yoon def liggéey ba arrangé wu ma la sëñ Fallu doon def mooy fexe ba dimbalee nit ki bu noppee nag te sëñ Fallu bu la dimbalee ba nga ba nga génn ci bu la wooyee ba nga ñëw dana la teg foo xam ne bu ëllëgee yaay gën a jub regal mais responsabilité bi lim la bëgg a boo defee lu jaadu sëñ Fallou bëggul ko fitnal nit bëggul ko toroxal nit bëggul ko sonal nit dala see génne ca problème yooyu ba nga mucc ca ba noppi mu fexee la nag ba nga dellu si ci moom mu won la ne lii bu mu amati ndax lii bu amatee lii lay jur nga xam ne boo fa jógeetee yow jub jub gi jub gi doon sàkku ci yow maanaam kenn ku sëñ lu ma a defar intervention defar ko du am benn yoon lay doon ndax bu la ko defelee ba noppi njëkk gam lay ji xam nga ku ne koo ne ne nga xamoo ma xamu la mu yanu ab responsabilité yow loolu taxoon mu xajool lépp xajool islam lu tax nag loolu ab xam nga muslim mu'min muhsin sëñ Fallou da ko doonoon arkaan yi tënk lislaam yëpp mu remplir ay ponkal di ab sëriñ man alxuraan bind ko di sëriñ bokk fu baax di imaam di jiite jumaam tabax jàkk tabax jumaam ba noppi di di di di njiit di imaam xoola waxuma la yi muy wax waaye yu daw yaram yi muy dolli xamaa kamaa xat kuntu te amulu yaa xadima gis nga noonu ma ko waxee waaye gis nga bi jumaa ji noppee balaa mu fal ba mu dem ba mu dem ba mu dem ndindi dafa julli timis ba noppi ne wëlbati jàkkaarloog sorol bi mu tag mu joxaat bi ko ñetti yoon rusloo wun la de rusloo wun la de rusloo wun wan sëñ bi ne ko rusloo wun la te suñ nga sëñ bi dafa yaakaaroon loolu nekk loo xam da ko bëggoon noonu mu meloon ak sëñ bi nag xam ne moom yërmande la ngëneelul ñëpp la moo tax sëñ Fallu xajoo woon képp ku ma sa ñëw fi moom nga xam ne li ma la wax du xotti sentir kenn li ma li ma doon misaal benn kii mu ne mu ne Sénégal drapeau vert jaune rouge la mooy sëñ Fallu ñetti couleur ko composé couleur bu ne meloo sëñ Fallu te da koy wax wert du ma weer kenn son duma sonal kenn ruus du ma rusloo kenn sëñ Fallu mës sa sonal kenn mës sa weer kenn mës sa rusloo kenn na ngay déggee booy interprété may Sénégal da koy déggee ci kenn ku mës a weer amul ndax du xotti sadir te du tas yaakaar yi kenn te xam lépp ba ñëw ëmboo ko ba dikk bala ngaa wax sa yitte sëñ Fallu xam loola ba faj ak foo mën a bàyyi ko loolu defe naa tey boo doon génn def micro trottoir ci sëñ Fallu ngay déggee njaagob sëñ Fallu tiijaanub sëñ fallu naarub sëñ fallu ñaseenub sëñ lu ne dégg nag la nga koy dégg cofeel googu mu am sëñ fallu mooy xajoo gi ndax sëñ fallu boo ko bëggee doo góob doo gar te ku laax nga laax macha allah loola waral loon ñëpp la gis macha jërëjëf jërëjëf barakallah jërëjëf euh, sëriñ Gana Messere ñi ngi koy sant bu baax baax di ko gërëm xam naa dañuy daal di jox euh, suñu naataango soxna maam Boussa Fall moom itam mu indiwaat euh, beneen laaj jëmale ko ci sëriñ Gana macha allah Cheikh Abdoul ci waxtaan bu am solo bi ginnaaw bi ñu génnee ci diggante Serigne Fallou ak wàllu yi nga xam ne eh, ñoo fi jot a jaar dañuy dugg ci Serigne Fallou relation ak Léopold Sédar Senghor ak eh, woy politique yi rawatina ñi nga xamante ne si ñoo seqoon réewu Afrique yi eh, foofu la ñuy dugg ak yow sëñ Gana ba ñuy ñëw ci liggéeyu jumaa ji ak yeneen ak yeneen. waa xam nga li tax relation sëñ Fallou nit yi politique yeeg Senghor. Sénégal moom day réew mu naqaree waxee da ngay dégg ñu naan sëriñ si nañ bàyyi niti kii waaye gannaaw ñoom ñooy jébbalu te di nit it nag faaw ñu di leen orienté kilifa gi jiite mbooloo nga xam ne tey sëñ Muntaxa mi bu nee woon na ngeen dee suba gaa yi dee boo ko bëggee génne ci système bi dox lu muy sottee boo ne amu ci baat loolu doo ko wax mee da nga koy jëfee mooy lu mu la digal doo ko def lu mu la tere doo ko bàyyi loolu neex ngay def bu boobaa nag ku mu am du la déggal sëñ dafa fexe woon ba. lim doon ci sëñ Touba saa yoo ñëwee fi moom woon la ko xam nga Senghor moom ku ne mooy nattable sëñ Fallou ba mu des Senghor moom moom da ko woon lu leer nañ naññi naññi naññi loo xam dara nekku ci xam nga mas na ko wax ne ko damaa jëm ci yoon wu sori wu bari ay pakk bari ay pax mu ne ko daan la ko àllal ba mu nañ dara du la fel xam nga loolu tey sëñ Fallou moo ko assuré nag kenn du la rey kenn du la coup d'état da ngay toog ba doyal suñ falloo ko ko assuré woon te defe naa toog ba xëy doyal jël say leen nga joxe kon am na loola aar ca loola ak nu mel waaye lan moo taxoon sëñ fallu man loolu suñ fallu mësta wax si ngoor njariñul boppam suñ saa yu si ngoor jotee ab coup téléphone am na jaamu yàlla bu sonn baabu jaaxle benn yitte la ma sonn am muy jumaa ji ku sa mas a jàpp yaa ngi moom yaay mooy maanaam suñ fallu moom ku mas a jàpp ci liggéeyub sëñ bi yow la àndal ndax sëñ bi la fi nekkal te sotti liggéeyub sëñ mooy njariñ ba noppi lépp lu ma sa xew lu mu mën a doon xoolal li mu daan dénkaane fexe ba wax ne nit yi adduna yi nañ am yërmande ci ñun yilif xam nga mu daaraat ak mu latafa négocier ak moral mënul ñàkk ndax sàmm bi yor ak juróom boyal ko ci àll bi jël ab sàmmkat jox ko mu di ko eh, bu sañoon dana regg mu jofal si te du ruur te du réeral waaye bu jëlee jur gi bàyyi ci àll ba noppi nag ba noppi toppatoo wutalu sàmm jur googu ci tooñ lay dëkk te sëñ Fallu li mu doon sàmm xam na ne sëñ Tuubaa la koy sàmmal xam na ne l'islam la koy sàmmal defe naa intervention yi nga wax sëñ Fallu taxawee ne intervention yoo xam ne laalewul sax ak yoon wi laalewul ak yoon wi waaye tey ndake bu intervention sëñ Fallu ñëwutoon nan lay mel te léegi la nga jàpp ci télé yi dégg ko wax daan na nangam ba mu xewee de sëñ Fallu Mbàkke yëkkati téléphone bi wax ci Tuubaa sëñ Fallu ne woon nangam sëñ Fallu ne woon nangam maanaam lu ma sa yëngu da koy jàppe ni ci jëmmam la dal intérêt personnel bi amuloon ci moom nga xam ne intérêt général la doon doxee képp ku mës a ñëw ci moom lam lay joxañ mooy lu jariñ nit ñi nga nekkal ba noppi tam moom mi lay won ne da war a jariñ réew mi donc yow yaa ko jiite moom citoyen si yëpp bi mu nekk citoyen modèle lay doon defe naa lim lim mën a lim sañc ci ay dëkk tey boo doon xool ci développement ñaata dëkk la sëñ Cheikh Mamadou Fadal sanc ci jamono boo xam ne sanc ab dëkk ni mu jafee ñaata la Cheikh Mamadou Fadal daan bay te benn investissement la koy def mooy lu mu bay nu mu mën a toll mu def ko ci léegi léegi léegi léegi jumaa ji looloo taxoon nag ñoom it ñu am cofeel ci moom ba buñ mësaa ñëw ci moom kenn ku nekk mu teg la ci yoon defe naa Senghor ku ko ëpp sens bëriwul nañ na ko jàkk bu ko kenn piis loolu xew na ci waxtoom mu nekk mbiram a nga ci feeñ eh, la mu ngoor yaa mën a ngoor yaay ki a ngoor nga xam ne noonu la ko waxee yow mën ngoor ah, nga xam ne yaa ngoor si ngoor ak la mu ngoor ah, ah, kon kon mooy mën a ngoor te noonu mu mel tey misaal ana au fait bu wàññee tey histoire wu sëñ Fallou lu génn ci moom te relation yooyu day mel ni tey bu Senghor ñu amuloon confiance Sëñ Fallu xam ki mu doon mais avec Boigny ma nekk Côte d'Ivoire mais man na bañ a xam dëgg dëgg dëgg benn dimension bi bi Sëñ Fallu amee waaye kii moom mus na mais xalu sawara ko jog yëg lakk Senghor mënut sikki sàkk Sëñ fal da ko wan lu leer nañ mu teg ci bëtam te xoolal li ngay xamee loolu mooy Senghor tey du ab jullit mais xoolal digganteem ak Sëñ Fallu mboolem luy diineem sëñ Fallu yàqalu ko ci dara waaye mboolem luy diineem sëñ Fallu it Senghor mënu ko caa yàqal dara waaye lii mun bokk siq nag ñu jaboote moo xam ne kii yàlla ko fi jiital da ko nangoo jox la mu moom ba noppi waaye lim moom mu téyal ko bopp di teg ak njabootam ji dee leen nangoo liggéey sëñ Fallu di soñ nit ñi ci mbay soññ nit ñi ci jàpp seenu njàmboor xam ki nga doon nangoo doylu melokaan yu baax yi sëñ lu doon formé nit ñi teg leen aw yoon ku ne mën a ñëw ci moom te doonutoon kilifa goo xam ne daa doon benn nopp sëñ Fallu du woon benn nopp maanaam du woon benn nopp mooy du ku ñëw rek xëy si am li nga bëgg bu keneen gonte am li mu bëgg bu ko doon def tey du am boobu position te defe naa jamonoom jamono ju doy waar la ñi doon ñi xëccoo réew mi ak ñi newoon adversaire yi Senghor ci booba jamono bu fekkoon ne sëñ Fallu tey jii amuloon position bi mu taxawee defe naa euh, du marqué ay apprentam ci histoire Sénégal mais tey ci côté politique côté dimension bi sëñ Fallu amoon ci xam ni muy sàmmee relation ak ñooñ nguur ba kenn mënu ko touché ba mu mujj nungul ko nga xam ne ni murid yi nungulee woon sëñ fallu noonu la Senghor nungulee woon sëñ fallu ci lu mu ko mas a joxoñ mu def ko ndax am na lu mu ko woon waaye itam euh, sëñ Gana dogguma foofu dafa mel ne Senghor itam dafa ñëw fekk sëñ Tuubaa ci li euh, sëñ Fallu ci lim gën a bëgg mu ne ko danaa la ci jàppale muy liggéey bu jumaa ji loolu itam tax na sëñ Fallu def ko ni mu ko def xam moom jumaa ji la waxoon rek Senghor moom ba mu amee ku muy wutoon loolu sëñ Fallu waxoon ku ñëw tudd jumaa ji rek ma fal la defe naa ko njëkk a ñëw tuddul jumaa ji ka tudd jumaa ji sëñ Fallou fal ko muy Senghor jumaa ji moom la sëñ Fallou amoon mu nekkoon projet am nekk yitteem te jumaa ji daa bari woon ay galgal tàmbalee ko Cheikh Moustapha ak Téléri gisee fi jamono toll léegi-léegi bu ma bu ñu demee ba ay gaynde ay ñay ñoo daan xoqatal sëñ Tuubaa ak njabootam te teewul luñ ma sa bëgg taxawal mu taxaw mbóot yi di lapp-lapp mënuñoo déranger njabootu sëñ Tuubaa fi ay gaynde néewut ay ay mbóot laa wax ñooy jéem a lay mbuut nag da nga gis mbuut wuy lay lay dugg ci armoire bi génn ñu naan waa ngi lay jële fekk mbuut jërul tal tal kënu da nga koy xaar bi si nga jëlu daal na tegg ci kaw affrontement bi xewoon bañ xëcc ab raay indi Touba affrontement bi xewoon ba jumaay Touba ji noppi 1963 Cheikh Mamadou Fadal génn ci këram gii corps diplomatique yëpp teew ñaari pouvoir yi am temporel spirituel ñëpp daje daje mu liggéey jumaa ji ba mu noppi nekk sëriñ bi yilif murid bi ba noppi di imam mënoon na ko liggéey ba noppi ne dox leen ci kanam sëñ bi loolu rek doyoon na mu te nee naa la bi mu liggéeyee jumaa ji ba jumaa ji mel ni mel moom sañ Fallu këram genn almet man na ko jeexal loolu taxoon nit adduna ñooñu xam nga nituk adduna doo ko jaay adduna da koy won yàlla ndax amuñu ko yàlla ji nga leen di sëf lu nit attal loolu leen sant ja waaye boo dàqee ñoom wuti adduna ab kàccoor kenn du ko jaay bëre ndax looloo yitteem sëñ Fallu nag looloo taxoon mu mel nii ba ñëpp maase bëgg Cheikh du Fadal kon nag loolu loolu loolu suñu Abdou Lahad dafay tegtale makaarimul axlaaq bi yàlla jagleeloon sëriñ Fadilu tayit li tax loolu amoon mooy sëñ Fallu fexe na ba benn buntu kër bu ne ci yoonu kër sëñ Tuubaa yi ak fenn fu ne ci lislaam bi sëñ Fallu seq na ak yow loo xam ne ëmbal nga ko kersa goog bu ne woon nangam jublu woo ko ñëpp marché la jublu ko fi ne amutoon opposant sëñ Fallu amutoon kenn ku ko opposé woon ci ci ci lislaam ñëpp a nangu loon Cheikh Amadou Fall comme boo masaa jógee Touba dem Tiwaawoon loo wax moom ngay fekk ñu nangu boo demee feneen loo fekk ñu lu ko waral mooy kenn ku nekk nangu na laa bàyyee la nga am ak la nga moom te lim amit nangu na ko bokk yu sédd la ko ci jox ak ci darajaam loolu daal xam naa foofu itam ba léegi sëñ Gana ginnaaw bañ la sante bu baax di la jaajëfal euh, ci euh, liggéeyub jumaa ji dafay mel ne projet la woon boo xamante ni bu rëy la moo ëppoon moo ëppoon doole ci projet yi nga xamante ni euh, Cheikh Amadou Fadal songoon na ko te am ci ndam ndax mën nañoo xamaat itam yeneen yi projet yoo xamante ni Cheikh Amadou Fadal taxawee na ko ci durant bi nga xamante ni mi ngi nekk ci toogaayub Cheikh Cheikhul Khadim bi. ci jamono ci nekku Sëñ Tuubaa la tàmbalee taxaw mais 1945 bi mu wutoo Cheikh Amadou Moustapha dafa mel ni li mu fi fekk dafa bari benn murit gi fekk na benn taxawaay bu dëgër bi des na ndax Cheikh Moustapha bi mu ñëwee lu benn la yoon week luy tax nit ñi xam fi ñuy jaar ak fexe ba Touba gi ñu war a titre foncier dëgër tàmbali sànce jumaa jeek yooyu Cheikh Moustapha ci la nekk sëñ Fallou ne ci wetam doy na ci ay chantier jumaa ji lañu wax mais màggalu Touba gi la tey côté boobu màggalu Touba kan moo ko indi Touba sëñ Fallu moo ne nañ koy defar borom ci bi dëkkam léegi ci côté économie ban événement religieux nga xam ci adduna buy génne lu toll ni lii màggalu Touba di génn liñ gën a mën a xam jàpp ko ay deux cent soixante nangam milliards loolu liñ ci xam mooy liñ jaar ci banque yeeg yenn kii waaye fi ne sama ganaar geeg sama potu kanet bi bokku ci sa ganaar bokku ci xamuñu loolu ak yeneen yi dox ci suuf xam ne loolu tey ci côté économie rek sëñ Fallou bokk na ci acteurs yi suqali am réew bokkut ak nag njariñul ku ma ci sant la yàlla lu ma ci yàlla fay nu bokk nga xam ne fi ne murit yi damay wax toujours ne saa yu ñu santee sëñ Touba ba noppi sant la sëñ Touba yàlla ci la mu ko sant loo dañoo wëlbati wëlbati ko nag santat Serigne Fallou ci saxalal gém lu saxalal ndigalu Serigne Touba lii màggal gi màggal gi am na lu mu demee woon de bi ko sëñ bi santaane tël sa sin la jëkk a ci tël sa sin la àggale fii la ñu bamba jommale cay bamba amado 1921 la sëñ Tuubaa joxoon ndigalul màggal gi bari na yu fi jaar ba sëñ Fallu woote ko Tuubaa bi mu tabaxee jumaa ji ba noppi bu ci toppaat xoola tey ci ay injaazatam walla marché occas jaboo xam ne doone Sénégal mais Afrique ngay wax amul marché bu am puissance bu toll ni marché nga def ko ci digg dëkk bi ñaan ca léegi noonu bu nu amutoon yi marché ni mu loolu ci taxawaayu sëñ Fallu tudde ko en gaz waa nga ca mag miire armeel yi indi courant bi indi ndox bi yokk lotissement bi lu ci nekk sëñ Fallu def ko ba noppi yëmul ci loolu jël engagement yu toll ni am ñoo xam ne yoon wi leen war a yor te seen kàttan néew saa yu génn ñaar fukki junni na leen ko jox joxe dépense maanaam sëñ fallu moom dafa maanaam moo tax ma ne la jamono dafa laaj sëñ fallu nu wax ko nit ñi sëñ bi dëkk boo xam ne tey da nga ci développement loo xam ne xamuñu nu mu toll ba tey Touba gi mën a nekk deuxième capital Sénégal jamono boobu nu ndox jafe jamono boobu nu courant jafe jamono boobu yeggale jumaa yi yan circonstance la parce que ba xool Seex sëñ Fallu fu mu ko jëlee 39 40 deuxième guerre mondiale la 45 Cheikh Moustapha wàcc nga boole bëgg bëgg bëgg a dikk yooyu tenir ko ba noppi war a yeggale procès hmm? ba noppi njaboot ñaata bourse sëñ Fallou ñoo xam ne tey moo leen taxawu ñu dem jàngi taxawu ñu waaw formé ay ay ay ñoo xam ne kenn xamul lu ñu mel ci ay doxiin mu formé leen boppam bokk ci système bi moom sëñ Fallou fexe ba Touba sengewu sengewu goo xam ne ci jëfam ak position bi mu amee miire armée yi yu jëkk yi forage su darul mën naan ba lu ci nekk Cheikh Mamadou Fadal def ko ci jamono yoo xam ne jamono bu jafee-jafe la sëñ Fallou taxaw woon te diggante boobu 1945 jàpp 63 rek nga xam ne avant muy ak 68 muy wàcc loolu yëpp ay injaazaat la yoo xam ne te mooy lu noppi ci sa kanam lu ci nekk sëñ Fallou def na ko ba mu noppi ci kanamam ni mu ko bëggee loolu amee nga xam ne kon ku bari ay ay taxawaay boo xooloon tey lim sañ ci ay dëkk yëpp ni mu toll te lépp loo xam ne mas na koo def liggéeyal ci diine lislaam rek a tax ndax wax naa la koo xam ne tey li nga li nga mayee ci wata yóbbu ko ci ay nit makka fay ko ci ay bor te bi bi nga fi bàyyi koo ngir ñu doon la mënoo am doom ju doon ñeenti junni mbokk yi loolu mooy mooy liggéeyal yàlla kon ci jaami yàlla yi waaw kon daal jëfam yëpp moom sëriñ Fadilu taxawal ay defar aw nit formé leen wut ay boromi yi xam-xam taxawu liggéey Serigne Touba bi sengew ci lépp ba mu mat loolu moo nekkoon taxawaayu Serigne Touba taxawu ci njabootu Serigne Touba gi it nga xam ne ñoo féete woon ci ronam féete suuf kenn ku ci nekk nam la war a taxawee mu taxawu la ko taxawu mag ñi taxawu kër yëpp loolu moo nekkoon taxawaayu day mel ni itam bi nga xamante ni liggéey jumaa ji noppi na euh, Daarul Maarif al Islamiyya bokk na ci projet yi nga xamante ni hmm. Cheikh Ahmadou Fadal taxawal na ko hmm. te projet boobu yaakaar naa moom ci la ñu demee ba Cheikh Mouhamadoul Mountakha di sumb euh, projet bu mag bii di université bi yàlla na ko yeggale te ñu fekkee ko loolu yëpp di wane ne Cheikh Modou Fadel ku yàgg a dugal loxoom la ci développement euh, réew mi waaye surtout nag ci yoonu murit sanc ay dëkk yar ay nit jàngal leen yee leen itam waaye itam taxawal itam dëkk bi ba lépp loo xamante ni luy développé ab dëkk la tàmbale ko ci marché bi tàmbale ko ci yoon yi tàmbale ko ci courant bi ci forage yi yenn lu nekk rek mu dugal ca loxoom di wane ne kon réalisation yi xëy na dañuy wax yenn Euh, euh, jumaa ji fàtte yeneen yi waaye itam yooyu yëpp mhm. dafa bokk ci mhm. réalisation yi nga xamante ni mhm. Cheikh Amadou Fadal taxawee ne ko ci diiran bi nga xamante ni ci la toog ci xilaafa gi itam doonoon itam circonstances yoo xamante ni yu jafe woon la ndax ginnaaw 40 39 cinq après euh, fin guerre mondiale xam ngeen ne fin de crise dafay laal réew yi nga xamante ni mooy sous-développé yi surtout suñu réew mii di Sénégal waaye teewut Cheikh Amadou Fadal teggi loxoom benn yoon ci njaboot gi waaye teggiwul benn yoon itam loxoom ci développement dëkk bi ba ni nga xamante ni ni la fi ni la jumaa ji yeggee mu jël ko jébbal ko Cheikh Al Khadim xam naa soxna Mame Bousso yow tam dañ lay daal di jox euh, kàddu balaa ñu lay jox kàddu ci laaj yu mujj rek di wane ne euh, bokk na ci ñi fi teew euh, sëriñ Moustapha moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Mouhamadul Bachir Fadilou moom sëriñ Fallou ñu ngi koy ziare bu baax a baax sëriñ Moustapha Mbacke waaye itam di ziare bu baax a baax sëriñ Fallou Bousso Abdoul Khari di ziar itam bu baax a baax sëriñ Abou al Baraka Mouhamadul Bachir moom sëñ Fadlu moom itam ñu teew nañu ci jotaay bi sëñ El njaay Ndiaye programme sëñ El Hadj Ndiaye euh, euh, euh, adjoint maire moom itam teew na ci programme ci jotaay bi. di sant itam mbokk yi nga xamante ni ñi ngi intervenir saa su nekk ci biir YouTube bi di ñu topp ci Bichri TV waaye di ñu topp itam ci du ñàkk danañ ci tànn yenn ci ay commentaires. nga xamante ni ñi ànd ak ñun soxna Mame Bousso xam naa ne laaj yi muy bokk bokk na ci laaj yi mujj. waaw su ko defee ñu tënk rek euh, benn wala ñaar ñu daal di euh, jox suñ gàddo bisimilah. Euh, jaajëfal nañ la bu baax Cheikh Abdou Lahad di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp liggéey bi dañoo ngi gis commentaire yëpp xam naa bala muy jeex dinañ ci dikk te euh, Serigne Ganna fi ñuy dikkee ak yow dañuy ñëw ba ci 1928 bi Serigne fàllu ak maam Cheikh Anta ak ñam àndaloon di demal Serigne Touba Màkka euh, circonstance bi nga xam ne demee woon nañ ko Màkka mu nekkoon lu jafe foofu lañ bëgg a dugg ak yow Serigne Ganna ci lu lu gàtt. waaw jërëjëf loolu dañ koy dugal ci biir kon taxawaay yooyu rek ndax loolu mhm. ci lépp mooy jëfal sëñ Tuubaa ak bëggam sëñ Tuubaa la mhm. ak bëggam muy siyaare ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xam ne 1928 dafay jamono bu doy waar ndax booba sëriñ bi bi mu faddoo te lu mat a jëf mu jëfal ko boppam te booba sëñ moom leer na ko ne projet yi fi des di jumaa ji dana yegg kon li ci jiitu mooy dem ajale ko mag aj goog it nga xam ne lu siiw la maam Cheikh Anta mi mu àndaloon di way juróom moom it ak ñam àndaloon seen Takkoog sëñ mu Njaay ñoom mag ñooñu mu sëñ Mbakke bu suug sëñ Moolaay ak kilifa yooyu ñu àndaloon Cheikh mu nekkoon aj goo xam ne li ko composé rek ngay xool alali sëñ Touba ko composé xam-xamu sëñ tuuba dereti sëñ Touba moo ko kon jëmmi sëñ bi ndax jëmm ji dem na alal ji dem na xam-xam bi dem sëñ maam Cheikh Anta Fall mooy alali sëñ bi sëñ fallu sëñ fallu mooy dereti sëñ mbaki Mbàkke Buso mooy xam-xamu sëñ kon dafa comme sa aj moom defe naa ñett a koy def bokk na ci kattan sa jëmm ak xam ak am léegi kon ah kon loolu mooy moo composé aj waaye aj googu kenn ku ci nekk ak position ba nga taxaw ndax ginaaw kii moom li tàmbalee fii ba mak luy jaay ko waxaale mu jën kee di sëñ Mbàkke Buso lu fi réer ci téere yi baa ñu lakk ko mu yeesalaat loola fa la xam-xam yam waaye ki garanti yi dem ba del si kenn du faatu it xam nga loolu meneen mbir la moom moo xam ne ah sëñ Fallou bi sëñ Abdou Salaam sëñ mënu soi génnee adduna sëñ Fallou dane sama mag ji bu yàggul rek ñu di ko jooy noppeegul njaboot gën a la ca topp doomi sëñ Mourou Moussa seeni fan karaj feeg maa ngi fi kenn du wopp kenn du faatu moo tax bi mu génnee adduna sëñ daan xëraloon assurance ba dem nag sëñ Fall wàccee sëñ dan xëriloo na kaay bu wàcc assurance dam na sëñ bi xoolal loolu feeg maa ngi fi doomi sëñ Mourou Moussa seeni fan ka kenn du wopp kenn du far sëñ bi sëñ bi sëñ moo tax moo tax xamul xamul moo tax sëñ Moussa Ka dane ba ngay aj ña fa teewoon dañoo waroon a raam jébbal la say seeni kurus faf di saw jaam ña nga ña nga dajeeloon laxat xaaja wa labba wa saara siyaare nga makka siyaare tuuba sëñ fallu loolu rek doyoon na ci beneen melokaan boo ci jël mooy dem taxawul sëriñ tuuba mottalil ko ponkam boobu mu bëggoon mu siyaare ji rasulullahi di aj goo xam ne lu yàgg la ci ab diggante waaye béréb boo xamee ne nii war na faa taxaw ba naari makka yi ñëpp am jaaxle ci kii fi teew kum doon moom sëriñ Fadilu nga xam ne ñi gën a rëy xam-xam gën a melokaan makk maam Cheikh defe naa bi muy ñëw pavillon bi tiimoon yonent bi jënd na ko àndaale maqaama Ibrahima ya fa nekkoon lami Sayyidatuna Fatima lépp Cheikh Anta da koo jënd àndaale masal yi tëjoon seen bopp yëpp sëñ Mbàkke bu sa mi réglé leen ko te jóge ci keppaaru Serigne Touba gi te loolu lépp ñu xam diggante Serigne Fadilu mii moom it taxawaay bi mu taxaw ci wetu Serigne Touba kon day mel ni lu Sëñ Touba naaloon di ko bëgg lépp mat na dara di su ca loolu sëñ Fallu taxawee loolu moo tax mbokk mi li mu sëñ daam Abdourahman Bousso mi waxam ji Sëñ Lahat maa ngi ko doon seetantal boobu ba léegi waaye moo identifié sëñ Fallu rek yaa saaxi in rumta salaamata min ada fi hadihi dunia wa tilka al abaad fanhad ila cheikh shuyuux Muhammad al Fadil qul wa shafiix al musaad e eh yow mbokk mi daal bu dee jàmm rek ngay wut mucc ci ay lor ci tey ëllëg ci lu gën a sore ak lu jege demal seex si sëñ Fallu rek roykat bu roy téef bu mag boobee rammookat bu mag boobu xaw sul wara baxru nada lay sulida nee na sëñ Fallu mooy xaw sul wara mooy ci xettali nit ñi waaye mooy géeju tab gi waaye mooy gay nag noonu hada wa man yastahi min yastahdi képp ku jub bëgg a jub sàkku ci ab jub sëñ Fallu da nga jub yaa akramal kurama wa xayrihim abada yaa man abuhu mislahu lam yujad gën a tedd ci gaay yu baax yi kenn mës a gis ku mel ni sa wajur woon waaye yow yaay koo xam ne yow sëriñ Fallu kat xoola ca biir wa in daxaaka muridun wa fi bu'din axastahu muslihan min shiddati wajal boobu murid nekkee fu sori ne ci jàqare bu nee sëñ Fallu sëñ Fallu ñëw su muy tafadulan li fadlika fiika laa ahadun yadduno mi ma daw kalaamin sayyi'at ni nga mel say ngëneel di sëñ Fadilu ñëwee ku ci mel ni yow du am ñi fi nekk ku mel ni yow du am ku me ku am ku mel ni sëñ Fallu amul ci ñëwee amul ci ñi fi nekk kon yàlla na ko yàlla fayal te yàggal fi njaboot gi sëñ Abul Baraka kilifa bi ko jiitu woon tàmbaleeg Cheikh Mahamadul Mustafa Fadilu Cheikh Mahamadul Amin yàlla sunu boroom dolli leen ay ngëneel ak i ngërëm kilifa yu baax yi teew ci jataay bi ñëw wettali suñu ci lu di leen sant di sant bokk yi nga xam ne it mooy Rafah TV ak Bichri ci taxawaay bi xam naa kàddu cant yi sëñ Mouhamadou Makhtar Diop dina ci ñëw waaye noonu daal yëg-yëg bi amoon mooy lii xam ne sëñ Fallou moom kenn gënu koo bëgg kenn kenn doon nangu ko la ci ëpp la ñëppay lànk ndax sëñ Fallou moom gaa fi nekk waaye o o maanaam faw nga yelu ci ndànk doxal ci kaw baa nga doxal suuf rek te moom it li tax mbiram yomb mooy waxtu mu ne dafa activé sëñ Fall dafa activé moom amut naa xaar rek dama composé wifi bi ñëwut te connexion déedéet buy dal muy dal rek teg-teg bi mooy sëñ Fall dooy laal rek di daj kon noo ngi sant njaboot gi di jéggulu bokk yi nu doon seetaan ku dégg loo xam ne ci waxtaan wi Euh, njuumte la mu jéggal na ko li ñu ci am ci tiyaaba yàlla nañ ko bokk taalib yëpp ak jullit yëpp te defe na dañuy wax ne borom xam-xam yi ñooy wax ne inda zikri saalihin tansiru rahma ak man arraqa waliyan fa kaannama ahyaaw kon kon day mel ni jataay bi loolu rek mooy sabab bi mooy daal sëñ falu sëñ falu ñëpp ñëpp ko bokk ay taalibe sëñ Tuubaa lañu war nañoo daje nu it waxtaane Serigne Fadil kon sëñ Abdou Lahad ñu bàyyi la kàddu gi mooy xam looy indiwaat ak soxna kii sëñ Alaaji kon ak bokk àndal ñoo xam ne ñoom ñii ñoo jóge ci kër Serigne Fadilu lii ab sag la ci noonu ndax wax dëgg yàlla bi ñu amee yëg-yëgub daal ne dañuy def jataay waxtaane Serigne Fadilu ñoom taxawaay bi ñu taxaw ñëw fekke si jataay bi jëmmal ko lu lu lu lu rëy la ci noonu yéen it noo leen di sant ci ni ngeen idaara jataay bi ak bokk yi niñ ko taxawoo am na ñi fi teew sëñ Mouhamadou Makhtar bu kàddu yi sëñ ji wala ku mu jox kàddu ci ñuy jógee ci sëñ Fallu sëñ Cheikh Loum ñeeg euh, sëñ Cheikh mi nu àndal nga xam ne ñoom it samay xarit lañu ñu invité woon leen ñu ñëw fekk si jataay bi ak waa kër sëñ yi ma jàkkaarloo nga xam ne ñoom dañ ne ko ba daayira soppee sëñ Fallu la ñu yor ñëw ñëw taxaw fi sama ñi fi nekk ak ñëpp fee moom yaakaar naa ñee fa toog ñee kenn ku ne na sëñ Fallu doom nga xam ne ay ay ay soppe sëñ loo fi daje kenn ku ne am ci yéene bi ma nee lañuy defal jataay bi kenn ku nekk ñëw mu fas ci rek moom daal bu leen fexe ba li may wax ku seetaan ak ku fekkee jataay beeg ku jàpp internet bi yam ceeg fasar rek géej daal ku dugg tooy ah, na ku am pas-pasu fas ci dara rek. Mhm. te noo ci duggee itam noonu ngay tooyee. Mhm. jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Gana Messere ñu ngi lay santaat bu baax a baax. di la jaajëfal ginnaaw ba ñu rafetloo tam initiative yëg ne war ngaa sant Cheikh Madal Fadal woote jotaay bii fii ci sa daara ji wax dëgg yàlla euh, loolu yaakaar naa ne dañuy wax naan ab euh, baari njënd bu ñu ne ko am na conteneur buy wàcc ca marché ocas loolu du aw xas ci moom aw tàggale ci moom ndax ca loola lay dundee waaye am murit wala soppeeb Cheikh Madal Fadal bu ñu ne ko am na fu ñuy waxtaane Serigne fallu sa waaja sa soppe loolu yëpp tam yaakaar naa ne Euh, ku ñëw da ngaa waroon na sax dagg bi ngir fekkee si fu ñuy waxtaanee Cheikh Amadou nga wax ko léegi buñ dee waxtaanee gaa ñu baax ñi ndekete ay yërmande dafay wàcc waaye itam sax na ci xadisul xursi suñu borom am na malaayka yoo xamante ni doyewu leen dara lu dul ñuy teewee jotaay zikri yi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko iza marartum bi riyadin min riyadil janna fartau bu ngeen rombee benn dër ci dëri aljanna na ngeen ca watt ñu ne ko wa ma majalisu zikri lan mooy jotaay lan mooy riyaadul janna dari aljana yi mu ne majalisu zikri mooy barab yi nga xamante ni dañ fay toog di dolle ko waaye dañ fay toog itam di fàttaliku yàlla ku mel ni itam chamadal fadal bu ko dee fàttaliku mooy dañuy fàttaliku suñu borom ak ay ngëneelam waaye dañuy fàttaliku itam cheikhul mi nga xamante ni ku jar di fàttaliku la ci ay jëfam yu rafet waaye jëfam yu mat di la sant bu baax a baax encore une fois di la gërëm yi tam bu baax ci courage yëg ne war ngaa sant chamadal fadal woote ngir sant ko lii yaakaar naa euh, doy na mën naa taxaw taxawaayu màggal Cheikh Amadou Fadal te moo ne ak fii jamono toll euh, taxut benn yoon ñu euh, wàccoo ak li nga xam ne mooy charte yi waa yi santaane kon ñi ngi santaat baax a baax kilifa yi nga xam ne ànd nañu ñun ci jotaay bi waaye di njëkk ci cant gi itam suñu wasila sëriñ Abdoul Fatah Mbacke ibnu Cheikh Amadou Fadal di sant itam sëriñ Xaadim Mbacke waaye di beral ak cant itam soxna Aïchatou Mbacke soxna Assou Mbacke Abdoul Fatah ñi ngi koy sant bu baax mi ngi topp jotaay bi di ko béggee bu baax a baax euh, xam naa dañuy daal di jox soxna maam Bousso moom itam kàddoom yi mujj rek mu tëj ñu jox sëriñ euh, Modou Mokhtar Diop mu joxe kàddu yi du ñàkk itam waa kër Cheikh Amadou Fadal comme teew nañu fi kenn ci ñoom danay joxe ay kàddoom ngir ñu mën a euh, wàcce jotaay bi jox sang yi ñoom itam ñu ñaanal ñu ñu yëkkate jotaay bi di leen sant itam di leen gërëm bu baax ci ànd gi ak commentaire yi bëri na lool mënees koo lim am na sax ñu doon demandé ngir ñu waxtaanewaat beral loxo Cheikh Ibra waaye bu ñu waxtaane maam Thierno Birahim ci diggam ak Cheikh Amadou Fadel waxtaanee maam Cheikh Anta Borom Gaabaan Cheikh Ibra Fall na ci biir waxtaanee jumaa ji kenn mënut a waxtaanee jumaa ji ba mu yegg te doo tudd Cheikh Ibrahima Fall waaye tudd itam njàmbaaru Cheikh Ibrahima ak taalibem taalibeem loolu itam dadaa dugg ci biir waxtaan wi kon luñ ci am rek Cheikh waxtaanee Serigne Fallou da di géej géej goo xamante ni loo ca am rek daanaka daf lay daal doy baharun la sahila lahu te naan la goo xam ne dafay yokk aw mar loo ci gën di di ko gën a mar kon soxna Mame Bousso ñu daal lay jox kàddu yi nga tàggatoo su ko defee ñu daal jox sëñ Modou Makhtar mi bisimilah. jaajëfal nañ la bu baax Cheikh Abdou Lahad ci émission bu am solo biñ la doon gunge ñu ko doon mhm. defee ci kër Serigne Gana Messere Maxtaar ñu ko waxee woon ci commencement bi kenn dutu ko présenté ci dëkk bu sell bi di Touba mu nekk taalibi Serigne Touba nekk jàmbaar saa yu yëkkatee kàddoom lépp ci Serigne Touba la jëm di santaat Serigne Touba bu baax di ko gërëm di santaat yàlla ci mhm. boole gi ñu boole ci njabootug Seexul xaddi mhm. di siyaara njabootug Cheikh Mouhamadul Fadal gi fi toog di ñaanal Serigne Abo Baraka yàgg fi loolu te wér di jël siyaar bi di ko teg ci sunu xarit sëriñ Seexuna moom sëñ Abo Baraka ak sëñ Abdou Fata moom sëñ Xabaan di leen jot jottali sunu siyaar ñoom ñëpp maa ngi sant bu baax ak gërëm sëriñ Basiru Mbàkke maa ngi koy siyaar ak Moustapha Couture ñoo ngi gis message yi dafa bari ba mënuñu koo lim ki nga xam ne nag moo ñu solal jàllaabe bi mooy Antal Idiap nekk foofee ca dakaar Sacré-Cœur képp koo xamante ni si uh, bëgg nga ci jàllaabe yi boo ko woowee rek xam naa dinañ affiché numéro bi ci bande d'écran bi uh, ñu leen di jox dig daje sunu émission Ahlou Khassida bi ñu baaxoo ànd ak yenn di leen ñaanal jàmm bu sax dàkk ñu dugg ci kasu rajab gi ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin di ñaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fi loolu te wéy ngeen jëf jërëjëf euh, soxna Mame Bousso Fall euh, ci kàddu yi wax dëgg yàlla ñi ngi lay sant bu baax a baax di rafetlu taxawaay bi am na solo lool di ñaan rek suñu borom gën laa sàmm bu baax a baax di ndaw sam bëgg lool liggéeyam nekk fee ca euh, site bi di Rafah TV xam naa dañuy daal di jox Serigne Modou Makhtar Diop moom itam mu joxe ay kàddu kàddu yu cant ak ngërëm jëmale ko ci mbooloo mi waaye sant itam bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy soppeey Cheikh Modou Fadal te ñëw fekkee si jotaay bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di sant waa kër gi ñoom ñëpp bàyyiwuñu ci kenn kon sëñ Modou Mokhtar bisimilah. aouzu billahi min seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim barke xaadim rasul mbokk yi jullit ñuy seetaan ak di déglu fu ñu mën a nekk ci adduna bi warangal këpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam noo ngi jiital ci nuyoo beeg siyaar bi saahibul fadilati Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne tey moo toogee jotaay bi ku tedd ki Cheikh Amadou Bamba xaadim rasul noo ngi delloo ay siyaar ak ñaan bu baax sëriñ Bassirou Anta Niang mi nga xam ne moo toog jotaay bi maam Thierno Birahim sunu borom bàyyi ko fi te yeggale yéenam ak naalam ñu ngi siyaare bu baax El Hadj maam Thierno ak jawriñam sëriñ Mahamadul Mokhtar mi sëriñ Cheikh Balla di siyaare ak ñaanal sëriñ Aboul Baraka mi nga xam ne tey moo toogee jotaayu Cheikh Mouhamadul Fadil di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko te wéralal ko mbooloo mi ko wër. ba lim yéene ci liggéeyal ko waajuram bu baax wa Cheikh Mahamadou Fadil mu defe ko ni mu ko bëggee te ànd ko ak njabootu Cheikh Mahamadou Fadil gi yëpp di ñaanal bu baax ak siyaar Serigne Abdoul Fatah mi nga xam ne mooy yore kàddu njaboot gi waaye di ñaanal bu baax jëwriñam Cheikh Mahamadou Bachir ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Mahamadou Fadal di siyaare bu baax Serigne Ahmadul Badiyu mu Cheikh Mahamadou Fadil ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal. comité organisation màggal gi ba ci Cheikh Mouhamadou Mourtada ak njaboot gi yëpp yooyu nag man nañ ko tënk ci délégation bi nga xam ne bàyyi ko na ci Cheikh Aboul Baraka mu jaar ci sëriñ Ahmadul Badawi ba ci sëriñ Abdou Fatah Mir kaddu gi ak njaboot gépp ci njiital sëriñ Moustapha Mbacké moom sëriñ Bassirou mu Cheikh Mouhamadou Nil Fadil ak sëriñ Alhaji Bousso moom sëriñ Abdou Kharija ak sëriñ Alhaji Ndiaye mii toog programme ñëpp xam ko ci mi borom taxawaay bu am solo ci kër gi waaye Serigne Abo Mbakke mu Cheikh Mouhamadul Bachiru mu Cheikh Mouhamadul Fadil ak sëriñ Cheikh Khadim Lo ak Serigne Cheikh Saylo délégation bi ñoo bàyyeekoo ci kër Cheikh Mouhamadul Fadil ñëw fekk si fii Alaaji Cheikh Gànna Maxtaar mi nga xam ne moo doon def jataay bi tey doon ko njukkale sëriñ Fallou waaye doon ko barkeeloo ci bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal muy bisub Maulana Cheikh Mouhamadul Fadil. bés bi li tax seex Cheikh na def ko ci xalaatu boppam ak xam ne gum xam Cheikh Mahamadul Fadil Cheikh Mahamadul Fadil ñëpp la. Hmm. xam gum xam ne bésub Cheikh Mahamadul Fadal bésub ñépp la te ku ko xam ci toolu Serigne Touba nga ko xam mu yar ab goppam di ci bay moo tax la 13 février lañ daje fii fekk ay bokk di ay soppe yoo xam ne yu fasantiku la ci réew mi bàyyi ko fu nekk. ñëw fekkoon ko fii samedi yendoog moom doon ko charge ñii mas nañ koo gis ñii masuñu koo gis ànd ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci réseaux sociaux yi taxawal ay groupe yoo xam ne dañ ko tuddee groupe whatsapp taxawal ay groupe yoo xam ne groupe facebook la yoo xam ne dañ fay daje di fa namm waaye difa fa wétali ko Cheikh Gana Makhtar lenn nag ci banqaas yooyu benn banqaas bokkoon ci ñoom la treize ñëwoon fi doon charge Cheikh Gana biñ chargé fii ba yendu fi mu toppatoo leen teral leen euh, soññiwaat leen ci li tax ñu bàyyi seen yitte ñëw fi muy Seexul Xadiim xamal leen ne it li muy def ak ak ñoom ñi nga xam ne ñoo ko sopp ba bàyyi seen yitte ñoo bokk benn wàccuwaay ci toolub seriñ Touba bi xamal leen it liy yitteem ak liy yëngu-yëngoom ak liy bëgg-bëggam ak li nga xam ne moom masa nekk ab yitteem ba mu daree jóg di dox ba nëgë di waxtaane Serigne Touba mu doon loo xam ne bokk yi bi fi dajee ñi nga xam ne xamuñu ko woon ak ñi nga xam ne xamoon nañ ko ak ñi ko doon dégg kenn ku ci nekk bi nga delluwaatee rek xëccaar nga laxasaayu goo xam ne laxasaayu liggéey sëñ tubaab goo xam ne danga nga ko feddliwaat ndax loolu li tax ñu du ko leeral maa ngi fàttaliku 2002 laa njëkk ñëw ci moom mi fekk këram gay muy kër waa juróom booba ak léegi tàggoowun fu benn yoon lu muy def ak lu muy wax mi ngi ko ànd ak bokki taalibe yi nga xam ne man damaa tudd sëriñ daaru Dieye mi nga xam ne mooy safooram man damaa tudd sëñ Modou Sylla mën na maa tudd it ñi nga xam ne ay soppe lañ yoo xam ne bi ñuy taxawal ay kuréelu soppe booba réseaux sociaux yi demeegul nii 2003 sëriñ Bassirou Ndaw mee toog nga xam ne kër gii ñu toog moo ko doon liggéey ma nga ne ànd ak Cheikh Abdou Fatah Dieye ak sëriñ Diagne Wakana bàyyi ko ndaamaatu ñëw fi euh, lu ñu mas a def ci bis ñu ànd ko lu ñu mas a def ci Cheikh Gànna ñu ànd ko sëñ Gànna di ko def moo waral bi sëñ Gànna ne daa bëgg wut plateau boo xam ne daf ciy waxtaane Cheikh Mahamadou Fadil sëñ Mourtala mi nga xam ne moo jiite Rafa keroog mbokk yi fi doon ñëw doon charge moom mii moo fi ñëwoon keroog doon ko jël sëñ Gana ne ko damaa bëgg buñ ci yàlla yóbboo le 26 euh, ma jàpp euh, plateau boo xam ne dama ci waxtaanee Cheikh Mahamadou Fadil ngir def ko muy sama ci màggal gi euh, Mourtala ak mbokk yi fi nekkoon yëpp daal di def xalaat boobee rafetlu ko lool sëriñ Gana it xam ne ginnaaw xalaat bi am na ko am na yeneen ji am na taxawaay bi waaye xam na ne wolof yi dañuy wax ne kër gu nekk boo fa dee dem da ngay jaar ci buntu kër ga wala boo amee loo yóbbu ca kër ga da nga jaar ca buntu ba mu jaarale sëriñ eh, sëriñ abo mi nga xam ne tey mooy xalifatu cheikh mahamadou fadel ak sëriñ ahmadou badi mi nga xam ne bu yàggut sëñ gànna nee na ma keroog bi mu xëyee ne ma minuit la fi sëñ ahmadou badi ñëw guddee na fi lool sëriñ gànna jotal ko ko leeral ko lim ci jublu ak lim ci bëgg sëriñ ahmadou badi rafetlu ko lool ànd ci ak moom ba noppi Eh, ñaanal ko ci soññi ko ci ne ko xalaat boobu nga am ne xalaat bu rafet la xalaat bu am solo la xalaat bu mat la ndax Cheikh Mamadou Fadel Cheikh Mamadou Fadel ñëpp la kon soo demee ba bokk ci yoon wi di waxtaane ci yoon wi nga xalaat ne da ngaa war wut jël say engagement ci yëpp nag muy ñi nga xam ne tey ñoo ñëw di ko def si ak bokk yi bàyyi ko fenn fu nekk di ñëw mu ne naa amal guddi koo xam ne dama koy jagleel Cheikh Mamadou Fadel fii ci sama kër moo waral jataay bi sëñ Ahmadou Badawi it rafetlu ko ak njabootu Cheikh Mamadou Fadil gi ku dégg xibaar boobu ci moom nga woote téléphone rafetlu ko ñaanal ko ci. moom it defu ko ngir lenn li tax mu di ko def mooy xam na ne sëñ fallu ñëpp ko bokk te xam na ne tool bi muy bay toolu Cheikh Mamadou Fadil la te xam na ne lii mu doon fal sëñ Fallou moom mënta fay sëñ Fallou ndax sëñ Fallou defal na ko loo xam ne euh, tuut na ci benn bis ne guddi képp mu def ko ci bisu Cheikh Mamadou Fadal euh, jàpp ne mën naa fay sëñ Fallou. kon daa xam ne ab bi la bu yor ab gopp di bay te tool bi muy bay di bay di toolu Cheikh Mahamadul Fadal Cheikh Mahamadul Fadal bis bii di bisam boo xam ne dañ koy nafar ndax kenn fàttewu ko dañuy nafar ak dundam di nafar ab bisam bu ñëwee loolu bu ma ko waxee nag doomi daara xam nañ luy baatu nafar kon du du ku ñuy fàttaliku ku ñuy nafar ak dundam la ndax sëñ falu kenn du ko fàtte ndax koo xam ne kenn du ngoon te jaaroo ci aw turam koo kenn du ko fàtte waaye mënees naa nafar nag ak dundam ak jaar-jaaram ak liggéeyam yaakaar naa li mu ci delloo si fàtte waxtaane ko ci Cheikh Mahamadul Fadal doy na bind ci ndaw ñi ñu mën cee fàttalikoo waaye doy na bind ci mag ñi ñu mën cee jàngee waat ma Mouhamadou Ndil Fadil bokk yi nga xam ne ñoo toog muy ñaari sëriñ Cheikh yi toog nga xam ne ñoo toog nii ci sama ndeyjoor nga xam ne fi la leen délégation fekk ñu wëlëre sëriñ Gànna ku leen xam xam leen ak sëñ Gànna ñu jaxasu sëñ Gànna ci lépp sëriñ Gànna xam ne ñoom ñii lu ñu nekk sëñ Gànna nekk ci ak ñoom biñ ko déggee ñoom ñoo invité seen bopp ñëw ne sëñ donte na yëgaloo kenn li ngay def noonu dañ bàyyi suñu yitte ñëw jàpp naa ne bu sëñ na waxoon ne damay def plateau ci Cheikh di Fadel fii ci kër gi yëgle ko daañu fi fekk mbooloo mu bare bari waaye sopp yi nga xam ne dañoo nekk ci réseaux sociaux yi nga xam ne war nañoo mat lu mat juróom wala juróom benn ci ay groupe yoo xam ne nekkuñu fi fédération lañ nekk sëñ Ousmane Kama moo leen jiite di président fédération ba mook sëñ Maam seex Fall ak sëñ Maam Cheikh Seck ak sëñ Mout Diagne ak sëñ Babacar ak sëñ Moustapha Sarr ak sëñ Pape Guri ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne ñoo jiite fédération boobu ak soxna Soodu saar ñoom ñëpp it waxtaan wii de teewuñu waaye mboolem lii ma lim ci réseaux sociaux yi muy groupe yi ak Facebook yi kenn ku ci nekk waxtaan wi yaa ngi ko ànd ak mel ne yaa ngi toog ci jataay bi ñëpp bàyyi nañ seen yitte ñoom ñëpp toog di déglu waxtaan wi ni muy jàll ci internet bi noonu la jàll ci réseaux sociaux yi te réseaux sociaux yi groupe yooyu ma wax groupe bu ci nekk fees na boo xam ne 256 personnes ña nga ca. bu dee groupe yi nga xam ne groupe Facebook yi la boobu xaw ma nu mu toll te ñoom ñëpp waxtaan wi ñii ñu ko toogee di ko dund fii ñoom it noonu ko toogee fañ nekk di ko ànd ak ñun di ko dund te doyut ci loolu ñoom muy kuréel boobu nga xam ne mooy soppe yi jël nañ ay maam jaara ci poroxaan yoo xam ne ñoo sëñ Gana ñoo ko ànd di leen fayal at ñaari maam jaara yoo xam ne dañ leen a jël fayal leen at mépp seen dund ak la leen war ci poroxaan su weeru koor jotee sëriñ Gana ànd ak soppe yi soppe yi dajale seeni i addiya sëñ Gana ci boppam yëkkati addiyaam ñëw jox Cheikh Mountakha ne ko lii sama addiya lii addiyay soppeyee mbooloo mi mu àndal xaaye dañoo ànd ñoom ci toolu sëñ Touba bi da leen di wax ne lu waay am ci sëñ lu waay indi ci sëñ tubaa laa koy def ndax man lu may yëf sëñ Touba ko moom loolee moo waral bis bii di bisu Cheikh du Fadal di bisu sëñ tubaa mu jaral ko mu tànn guddi gi guddi gu màgg gu sell gi jagleel ko Maulana Cheikh Mouhamadul Fadil kon euh, Serigne Moustapha yow mi nga xam ne yaa jiite délégation bàyyi ko ci euh, Cheikh Baraka ak njabootu Cheikh Mamadou Fadil gépp Serigne ganna da neena na mi ngi sukkat ay bëti woowam tàllaat ay loxaam ànd ak njabootam gi ci kër gi ba ci doom yi ji ne ci kër gi di soxna maam jaara mbàkkeem sëñ Mudu Muxtaar ak mbooleem soxna yi fi nekk ak soppe yi nga xam ne lu ñu nekk moom ñoom ñoo ko ànd ak dëkkandoo yi mi ngi tàllal ñaari loxaam di taal ak di sàkku ci Maulana Cheikh Mahmoudou Fadel mu nekk ak dolliku ak yëkkatiku ak mucc saahiran wa baatinan ak dolli ko ci ba faw ci mboolem ñi nga xam ne ànd naa ñoom toolu Serigne Touba bi loolu rek tax mu di ko def di feddliwaat ak taalibeem di fàttaliwaat pas-pasam ci Serigne Touba di feddliwaat diggam ak njabootu Cheikh Mahamadou di Fadil te xam ne lii moom la gis ne moom mooy yoon wi mooy liggéey bi kaddu yooyu la waxoon ne su bokk yi dajee nañ leen ko jottali jottali ko soppe yi jottali ko ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ci àddina wërngal gàpp waaye sant nag bu baax a baax Cheikh Abul Baraka bi sëñ Gana jógee quartier mujj bii daf ko woo ñaanal ko dénk ko yu bëree bëri mu wax ko ko te loolu mën naa ci tudd njabootu sëñ fallu gi kenn ku ci nekk jël na téléphone am di ko woo ñu ci bari ñëw nañ fii ci béréb bi ñu ci bari waxtu wu nekk ñu ngi déggante moom ci sëti sëñ Fallou yi di ko soññi di ko ñaanal di ko gindi ci yoon wi nga xam ne ci la nekk waxtu nekk muy liggéeyal sëriñ Touba te loolu ko njabootu sëriñ Fallou gi defee noonu la ko njabootu sëriñ Touba gi yëpp di defee noonu la ko njabootu maam Thierno Birahim gi yëpp defee noonu la ko njabootu maam Mahram gi di defee ndax xam nañ ne ab soldaar boo xam ne dafa engagé wu ci kennal sëriñ Touba ak waxtaane sëriñ Touba mbaaxam gi ak waxtaane sëriñ liggéeyam bi ak njabootu sëriñ Touba gi te loolu yoonu l'islam bi yëpp seeral nañ ko Seex Gànna kennal gum kennal sëñ tubaa Serigne Touba jaral gum ko jaral ay kàddu mi dégg nañ ba tàyyi mu ne man sama deru sama jëmi bopp lu ci waaye mën a wax baal naa la waaye daam moom muyu ma ci kenn wax ci dara hmm. kon moom yittem yëpp sëñ Tuubaa la ko jox hmm. yàlla na ko fa yàlla gën a bàyyi gën ko sàmm te yeggale ay yéeneem yegg ay méwatam ci tool bi nga xam ne ci la nekk ci la gël sëriñ Tuubaa noo ngi leen di sant baax di leen gërëm di bëgg lool ci délégation bi fi ñëw ndax ku leen gis gis na njabootu sëñ Fallu gi ndax ñii ñooy kër sañ Fallu hmm. ñii lu ñuy wooteel kër sañ Fallu wala lu ñuy def kër sëñ Fallu boo demee fekk leen lu ñuy yónnee ci njabootu Cheikh Fallu di ko yónnee boo gisee délégation bi gis leen lu ñuy tàmbale ci kër Cheikh Mamadou Fadil sëriñ Abo mii toog muy conférence yi ñuy def muy palaato muy lu ñu ci def moo koy ubbi ci alquran di doomi Cheikh Mamadul Bachir kon yàpp naa ne kon kër sëñ Fallu lu am jàpp ne bu ñu ko yablee ci sëñ Fallu muy mbégte yabal nañ ko jotaay bi ñi ngeen fekk it def nañ ko mbégte xol bu sedd guy xoole leen jëmmi sëñ Abul Baraka waaye xoole leen jëmmi Cheikh Ahmadou Fadal xoole leen jëmmi sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba kon noo ngi leen sant di leen gërëm di jégalu lu ci dëng man Modou Makhtar mii doon jox wax la waaye Cheikh Gana mi ma doon jottiloo ak doon ma wax loo ay wax a matoon na li ma doon jottiloo mat na waaye doomu aadama moo mosut te xel di fat waaye am na yéene ko fi nekk ak ko ak koy dégg suñu kàddu ma jaar ci sant la gërëm la kon noo ngi jéggalu sant waa Rafa gi nga xam ne ñoo ñoom ñoo àndoon jataay bi ak waa Bichri nga xam ne ñoom waxtaan wi ak semaine bi jàll li fi jàll ci waxtaan yëpp ñu ngi ko ànd ak ñoom lu xew ci kër gi ba barki démb bi fi Cheikh Mahamadou Kara yendu see ñoo ñoom ñoo fi bokk nekk lu yëngu ci Cheikh gànn muy lu muy defar Serigne tubaa ñoom ñëpp muy presse bi danañ bàyyi seen yitte yëpp ñëw fekk fekk jataay bi jataay bi bu fekkonte ne yëgal nañ ko presse bi presse bi yëpp fi bokk ñëwandoo kenn ku nekk woote na am yéene xam ne lu seex Gànna nekk nekk nañ ca ak ñoom ànd nañ ko ak ñoom am na lu bari ci ay site internet yoo xamante ni bii waxtaan wi jël nañ ko ci Rafah ak Bichri àndaat ko ñoom di ko jàllale fañ nekk en direct kon loolu cofee lañ wane ci Cheikh Gana ak bëgg ko sëñ Gana bëgg sëñ Touba bëgg ko jabaru sëñ Touba ak wéttali ko ko sëñ Touba moo tax lu mu nekk mu ànd kook ñoom comme mbooleem organe de presse yëpp noo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm lu dëng ci wax ji nag Modou Makhtar lu mat Cheikh Gana wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu sëriñ Mouhamadou Makhtar Mourou Mokhtar ñu ngi lay jaare bu baax a baax di la sant ci kàddu yi nga xamante ni rafet na lool. kooku mooy euh, Cheikh Madal Fadal boroom na am mu am euh, mooy ki juboo woon ak boromam mooy taalibeb Serigne Touba bi joxoon léppam Serigne Touba bëggoon ko ba kenn mënta xayma fi mu yeggoon Serigne Touba ci bëgg ko sëñ Gànna wax na ko léegi dem na ba jàpp ne di sotti rongoñ. ñu ne la looy jooy nga ne ngir bëgg sëñ Tuubaa nee na def naa ko muy farata loolu yaakaar naa doy na sëkk te kenn ku nekk xam na ne euh, bëgg moom ci la nit ñi di rawante kon ñu ngi koy sant bu baax moom sëñ El Ndiaye mii nga xamante ni moo doon jottali kàddu waa kër Cheikh Amadou di ko santaat bu baax a baax ci suñu turu bopp ndax taxawaayam bi nga xamante ni mi ngi koy taxaw ci kër Cheikh Amadou Fadal kenn ku nekk xam na ne barab bi dafa toll ci ñu koy yeesalaat li ci ëpp ci liggéey bi ci loxoom la jaar kon ñi ngi ñaan suñu borom dimbale ko kàttanal ko ba liggéey bi fi mu fi mu bëgg mu yegg fa yàlla na fa yegg te lépp ñu ànd ko ak sëriñ bi dem ba ñuy tijji barab bi jébbal caabi sëriñ Abo Mbacke albaraka mu ñaanal taalibe yëpp ñu ànd ak tawféex xam naa dañuy daal di sant bu baax mbooleem groupe Bichri TV ñi nga xamante ni ñoom ñoo àndoon ak ñun ci direct bi ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di rafetlu liggéey bi ak euh, kóllëre gi yi nga xamante ni seq ngeen ko ak Rafah TV ñoom itam di ñenn itam ci organes yi nga xamante ni ñi ngi liggéeyal Serigne bu baax a baax ci yoon wi ci discours yi ci xutba yi Cheikh Ahmadou Rafah di ko jàllale waaye di itam jàngale itam xeeti émission yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir dëkk bi di yee nit ñi ak sensibiliser yooyu yëpp ñu ngi ciy sant bu baax ci turu Serigne Mourtada Fall mi nga xam ne mooy directeur bi waaye di sant ak gërëm bu baax mbooleem techniciens yi caméraman yi cadreurs yi naka noonu ñi nekkoon ci direct bi sëriñ Allé Lo ñu ngi koy siyaar bu baax di siyaare sëriñ Fallou kazalika ak ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ba mu sotti waaye di santaat bu baax a baax soxna Mame Moussa Fall mi nga xam ne moom la àndoon ak moom ci liggéey bi di sant itam bu baax a baax kilifa yi xam naa dañuy daal di jox kenn ci suñu kilifa yi mu ñaanal ñu ñu daal di eh, ñaanalante ak bokk yi nga xam ne yéen a àndoon ñun kon bisimilah sëriñ Moustapha nga defal ñu ñaan ñu daal di eh, yawee ko amin <clears throat> allahuma amin barke Cheikh Abdou Fadal amin ya rabbal amin